li waral woote mooy fii suñu kanaal bii mënatuñu ubbi fenn fenn fenn ci àdduna kenn amul foo war a mën a jaar démb am na ñoo xam ne day borom yi beeke daanu fii ñun ñooy jóg lijjanti am na soxna soo xam ne démb fii la daanu ak i bagage ñun ñoo defaraat kanaal bi gaa yi nag ñëw nañ fi def def nañ seen kem kattan kara ak ak équipe ñëw nañ fi ñeent yoon ba juróomi nañu ci dara kon nag lii métti na méttiwaay boo xam ne ku ñu ci dimbali daal la ñuy sakku ngir yàlla ak yonent bi lii moo taxoon nag ñu dajaloo ñun waa secteur bi yëpp ñëw bëgg ci suñu bo ku ñu ci defal ndimbal ndimbal nag lañu ñu ciy ñaan ndax sonn nañ lool lool lool lool lool. ndax autorité yi ñëw nañ fi ñëpp délégué yëpp ñëw nañ fi. ku ñëwit da ngay yër dem sa yoon équipe bi ñëw na fi mënu ci dara kon nañu ci man dara nen ñëw ñi ci man dara rek nen ñëw client benn client mënut a jàll benn client bu mën a jàll fii na ñëw nan ñëw xool benn client bu mën a jàll amul ñii leb banque yi ñii leb lépp te ñëw dem fenn amuñu lu ñu lu ñuy defee loolu loolu jaaduwul benn client gisuñu man Fall Ngati Diouf maay wax sama buntu place ngi fess del te dama leb bank, nek jabot awma luma lu sama xar sama borom keur gañu sama njaboot màgguguñu maa ngi nii sonn naa ken awul sama place ñepp son amuñu suñ place ñoo ngi nii ay jigen rek lañu bank lañ leb amuñu dara ñoo ngi nii nak nag buñ lebut bank dañ ñuy ah sëriñ mom nañu dimbali ndax ñun mom lañ watel mais barki démb la fi jaar gis li deug la période tabaski lañ nek li ma li gën a daw sama yaram mooy loolu lim tombeek période tabaski ndax jamono ji toll nañ foo nga xam ne lépp lu ñu yaakaar si marché fi mu ne nii période tabaski bu ñu demee ba période tabaski nag ñiy jënd seen bagage ba pare te mënuñoo jaay dëgg-dëgg naqari na te jamono doy waar doy na waar lool. ñu ngi naan nag monsieur le maire lii lu mu si gën a gaawee balaa tabaski waxuñu après tabaski de balaa tabaski na ñëw dimbale jaamu yàlla yi ñu mën a jaay lii ñaaw na lool ñaaw na lool ñaaw ah waa xam nga euh, ñun dañu am man maa ngi fi teew en tant que délégué principal mais en tant que mouvement Benno pour le développement de marché central de Kaolack te xam nga toujours mbooloo ni muy doxee mooy bala lu ñuy def rek dañ koy waxtaanee xëy na période tabaski bii nii moo tax waxtaan wi xaw a mais ñi ngi si woon ñi ngi si woon ndax ñun li ñuy tax di dox mooy développement pour le marché développement marché nekkul na rek pour pour dindi lu salte li rek déedéet mais yow lii bu setee te yow amoo développement du dem ñun ñaar yi lañ boole marché bi day set mais yow muy jaay aussi da nga yëg sa bopp si marché bi. loolu moo ñu tax jóg loolu moo waral kii mais comme lii nii dafa jàmp dëgg-dëgg lii ku fi jaar da nga xam ne lii ñaaw na président monsieur le maire ñu ngi lay ñaan lii jarul xaar. ñun ñëpp am naqar ñun ñëpp am métit ku la na amul fii naqar rek waxu la dëgg bakk dee man bi daan fi dem dafa maa jooyloo ndax laata ñu ko génne ci canal bi xaw nañoo dee dafa surux ñun ñëpp ko doon jàpp pour génne ko te loo rafetul loo xam ne handicapé la noonu la suruxee barki démb ñu jàpp di xëcc di xëcc ba sonn dimbale suñu place moo tax ñu génn ñaxtu nii kur ku ñu dimbale lañ bëgg fi ne nii balaa tabaski duñ mën a jaay marché bi daa fees dell ak ndox fàccu leen lii yéen ñi nga xam ne am leen naqari da ngeen ko war a wax mooy dëgg ñu ko maax da ngay wax la naqari soo gisee loolu na da nga koy wax mooy dëgg na ñëw dimbale ñu fii ñu nit ñi client yi mën a ñëw ñu mën a gis client sonn nañ torop marché Kaolack bi salte na bon na juñ jógee na Kaolack surtout moom yi ñu ne amuñu doom boo ñu xam ne dañoo dimbale dañoo leb banque ba fees toog di liggéey sa sa place ba mu fees am jaay ñu dara ku ñaw daanu te ñemit suñu sañoon sëriñ boobu lañ wootel bañu ñu ko dee ndax liggéey kat la waaye ñiñ fi tegit na ñëw dimbale ñu waaw suñu metti na am na fi semaine yàlla man nag ren laa jaay si waaye gawuma ma jaay si wàll ragal naa leb naa xaalis su jàmbur chargé ko mais fii salte yàlla buñ fi jëlee jàngoro maa ngi damaa soj ñëpp a soj ndox ndox mu bon